am benn affaire bu am solo boo xam ne nii Sadio bëgg naa ko waxtaan Pape Sidi euh, ku ko xam dëgg dëgg dëgg di nga ne kër boo ko gisee sa xel dina dem ci kër kër gi xam toog ñoom sa xel dina dem ci Pape Sidi samay xarit lañ bokk dëgg donc ñu benn affaire boo xamante ne def mooy lan mooy saay saay benn chanson boo xamante ne tey li tax ma laaj la ko san pas du tout da nga dëkk Kaolack ñu dëkk Kaolack ay xarit mais tey hip hop yow branche gën lu am solo hip hop bu nekkee jëmm tey bopp yow dañoo am ay hip hop bëri léegi donc ñu def benn chanson boo xam ne dañ saay saay yow lan ngay wax par loolu en tant que animateur. ah yaa ngi indi problème parce que nit du jur doomam bisu ngénte la dikk nga ne ko yow loo ciy wax en tant que xarit. xaritu doom bu yàggee ñu ne la est-ce que du yow yaa nekkoon ci ginnaaw jabar ji bu waa ji génnee musiba cest à kër gi en ce moment ñu ngi communiquer si single boobu man jël naa leen aaru mbedd jeudi bi mais ñoom li ñu wax ñoom rek ñoo habilité pour défendre te ñoom seen combat boobu man li ma mën a témoigner si kër gi mooy ça ne date pas d'aujourd'hui depuis 1998 la leen Ablaye Diack njëkk a yóbbu saam ca tool yi dóor leen ba ñu bëgg a dee buntu mairie lañ leen dox ba 2000 onze ñu créé mouvement bu tudd mouvement Y'en a marre mu nekk référence ci révolution africaine yi 2014 Sall dafa def deux ans rek ñu génne fi jugu fi jugu mais saay saay defe naa ah li ma ci déggin bokk bi ma ci am même bu dee kenn du ko wax kilifa fii Sénégal dañu am tendance wormaal suñu kilifa te loolu moo loolu mooy yëfi nit bu baax waaye bu fekkee nit da ko fekk muy saw ci mbedd bi nga ne ko yaay saay saay ndax da saw ci mbedd mi dañ naan la yow mi wax loolu da ngaa ndax kii kilifa la même bu sawee si mbedd mi war waroo ko wax déggin boobu laa ci nanu xool bu wax ji ñaawee ndax jëf ji tax ñu wax loolu rafet na xale bu nekkee ci réew bëgg a wax te saa yu ubbee gémmiñam nga ne ko noppi te wolof njaay nee na dëgg musul xale da koy for mag da koy for ñu bàyyi xoqatal bi ñu xoqatal Canabasse muy di muy Akabri ku am ko bàyyi mu libéré ko naan te bàyyi naan dafa am ku nekk ci ginnaaw loolu dafay tardé jeunesse africaine am réew pour mu dox am réew pour mu développé faaw ñu dëkk ci réew ma ku ci nekk fa nga nekk même dawal ko pour sareet mais gisoo aussi gisoo aussi tamit waaw suñu bàyyi c'est-à-dire nga dama la dama la laaj en tant qu'animateur mm-hmm. tontu ko mais en tant qu'animateur une institution. C'est le gardien de la magistrature suprême. Moi, je pense pas qu'il parle de Macky Sall euh, que président la République. Il parle de Macky Sall maa ne woon euh, dinaa wàññi sama mandat sept ans maa ne woon dinaa wàññi sama mandat bu sept ans bi yóbbu ko cinq ans maa ne woon dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa jëlee euh, parti sama parti ma génn ci bàyyi keneen la la avant le parti ainsi de suite man nag wax dëgg yàlla mënu maa défendre li ñu wax